Mandiaye Seck nekk suba teel que nekk Faramareen loolu benn rek la ndax suba teel Sénégal la ne Faramareen Sénégal la ne te ñu ñëpp benn lañu on est des frères diggante Wally sekk ak Mandiaye sekk loolu warta yàq seen diggante te loolu du ko yàq ma ni seytaan yi bëri doole rek fu mu xajul rek lay dugg waaye yàlla yàlla indi jàmm Mandiaye sekk nit ku baax la Wally Seck nit ku baax la. waale amul benn xolu kiñaan bu mu jekk dencal manjaay manjaay amul benn xolu kiñaan bu mu dencal xëy na nag erreur mën ta ñàkk te nit ku dul juum amul waale manjaay toog na juum na yow xam naa ne loolu mu juumee sax nit ñi fi nekk di tararar rek waaye yow jàppee woo ko dara ndax ma manjaay seek sa frère la yéen a bokk yéen a bokk de ma bëgg na nga woo sa frère ngeen waxtaan ndax yow bu dul dara même boo doon jàppit gën cee jàpp bu wax di tax nga bañ cee jàppate de gën a la jàpp ndax ñii ku leen jàppale ñu dem manjaay ma bëgg nga gën a góor góorlu jàpp fonk li nga fonk gëm sa joog nga joog bañ a lijjanti dara yaayu manjaay Seck dégg naa ko mu woote ci émission bi nga xam DJ Yves moo ko invité woon manjaay Seck mu woote ndeysaan nga xam ni kii di wax nii cofeel gu cofeel gu rëy lay waxee xam nga doom ak ndey ci xol dafa dafa fort dafa garaaw manjaay nga gën a góor góor rek jàmbaar nga jàppal label bi nga nekk nag nanga fa gën a góor góorlu ndax demoo pour xeex waali da nga dem pour liggéey yaag sa frère booy kii bambaali nga nekk nag na fa gën a góorgóorlu ndax demoo pour xeex waali da nga dem pour liggéey yaag sa frère booy kii bambaali dama bëgg nit ñi di wax jàmm nit ñi di wax jàmm ndax tey ji jóge kër waali dem labelu suba teel mi ngi mel ni rek yaa ngi kër waali parce que lépp benn la showbiz moo leen boole te showbiz dafa war a rafet dama bëgg showbiz bi mu rafet maanaam mën ngeen a def lu ne mais na rafet bu ci ay coow am bu ci ay xuloo am xëy na ay këlëng-këlëng ne nii rek ci wàllu musique après dafay jeex àdduna dafay jeex de billaay ku jàpp ne àdduna du jeex yaa ngi nax sa bopp gis nga kuy bañ ku la sikk nga mbaa nga bañ ku la ŋàññ génnal ci showbiz showbiz moom am na xol yoo xam boo ko yoree am yërmande di yërëm nit ñi di am looy seet booy ba nga génn ci te xam dinañ la éliminer léegi nga perte nag dix perte leste ndax soo bis nga ca bëgg a àgg jubóog sa nawle du loo ko may comprendre sa nawle du loo ko may xaritoog sa nawle du loo ko may ndax nekk fi naan ay kii sama waaye laag nekk di wut xarit ak yooyu di jéem a négocier gaa yaa ngi jaar si suuf du say tànk yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg jàmm bëgg artistes yi nekk ci jàmm booy nga ngeen noppalu ko te xam ne soo bis gaa yi def nañ ko léegi saw bis dañ lay saw te saw sobe la te bu la sawee doo mën a julli doo mën a dugg ci biir ndax dangay xeeñ lii kenn mës koo gis noo aara salté aara salté man damaa sax jommi ku yebu nopp lu ko de man de dinaa sax bàyyi man benn yoon parce que man xol bi ma yor du xolu artiste man man xol bi ma yor du xolu sow biis parce que damaa baax sama xol bi set wecc ma yéene ñëpp jàmm mais xool ñi ngi leen di yéene jàmm noonu lañ leen yéene safaan ah xanaa rek ñu ñu toog di bégal fan si waaye day yaakaaroon ne lañ ci sori ah kenn bawul kenn artistes yi bàyyiwuñ seen morom artistes yi mbër yi bàyyiwuñ seen morom mbër yi footballeur yi bàyyiwuñ seen morom footballeur yi maçon yi bàyyiwuñ seen morom maçon yi jaaykatu ndambe yi bàyyiwuñ seen moromu jaaykatu ndambe yi kenn bàyyiwul kenn jaaykatu naajo yi yi ñii wuti géej gi bàyyiwuñ seen moroom ñii wuti géej gi ñii voyageur bàyyiwuñ morom voyageurs yi kenn bàyyiwul kenn chauffeur yi bàyyiwuñ seen morom chauffeur yi mais lii fan la ñu jëm ak moom ay waay gëm yàlla wóor